képp koo xam ne yow àdduna rekk ngay wër sa gàddaay googu gàddaayu àdduna rekk la waaye képp koo xam ne yàlla ngay wër ak yonente bi boo ñëwee da nga fa fekk yàlla ak yonente bi na ngeen moytu tam di dem ci jotaayu nit ku baax di fa def ay safaan ëpp naa def jotaayu nit ku baax kenn du fa dem di fa def lu ñuy tere walla loo xam ne ku la ci gis nga ruus kenn du fa dem di taxawaalu képp ku fay dem na la yitte yóbbu te boo demee nekkal ci li nga war a nekk bu jeexee nga dëpp looloo lay may tuyaaba waaye dem ne gis naa sëñ bi waaye na neexoon rek nga fa nekkee walla di tukki ànd ak koo xam ne daganu la ci lislaam loolu lépp dañ koy tere ci xeetu tukki yi nga xam ne dañ ciy jaamu yàlla kon nañ ci gën a góor góorgóorlu bu baax a baax xam ne daal mboolem xeeti teraanga yi nga xam ne doomu aadama bi ñu koy wut mu ngi ci biir guddi gii sallallahu alayhi wa sallam moom xaddis wala xaraj ah, yàlla sunu boroom moo ko defal lim ko defal tilka rusulu faddalna baadahum ala baad minhum man kallama allah wa rafaa baadahum darajat wa aatayna isa bna maryama albayinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus kon yàlla teraangaam yi moom kenn xamul lu mu doon yenente yii yàlla day wax ak ñoom ñii mu jegeel leen boppam waaye yenente bi rek la ñu wax ne fa fa kaana xaaba xawsayni aw adna yenente bi moom jege na sunu boroom ba kenn xamul diggante boobu nu mu toll waaw loolu moom kenn mënu koo firi mbirum yàlla rekk la kon daal maa ngi leen di soññi di soññi sama bopp laa ciy jiital fan yii buñ ko yemaleeg fan yi weesu woon nañ ci gën a góorgóorlu nañ gën a bàyyi xel suñu boroom nañ ci góorgóorlu nañ gën a bàyyi xel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañ góor góorgóorlu xam ne lislaam day ay nit ñu baax ñoo jaayante tuur seen deret bañ mën cee jot ñooñu day buñ leen mënut a jot it ndax teraanga li leen yàlla defal war nañoo góorgóorlu suñu digganteeg suñu boroom ba xam ne wàcc nañ wàcc jafe na waaye ñu góorgóorlu kémtu lay kàttan ndax jaamu yàlla ñaar rek la jaamu yàlla sa kémtu lay kàttan ak jaamu yàlla ci ni nga ko mëne waaye ñaar yëpp mën naa ne fi nga ko mëne nag loolu mooy jafe-jafe wu ñi dañ koy defe nam leen neexee ne nii lañ ko mënee waaye loolu taxut ñuy wax niñ ko mënee mooy fi sa kàttan yem bu fa yemee li ci des suñu borom leen la ko ci mbaaxam yi kon ñu wàccee di kàddu yi foofu ah, ah, di leen ndokkeel ah, ci weer yu tedd yi mooy weeru mawlidi nabi rabi al awal di leen ci ñaanal sunu boroom mu defal leen ci mbooleem seeni mébét te mu ànd ak njiglaay kenn ku ci nekk li mu fas ci xolam digganteem ak sunu boroom digganteem ak lislaam digganteem ak lépp lu baax yàlla defal ko ko te mu jik ko yàlla sunu boroom nàmm xol yi ñu bëggante ñëpp yenente jàmm yàlla nàmm xol yi génne ci soxor ak iñaan génne ci mbooleem jikko yi nga xam ne lislaam da koo ŋàññi te mu nekkoon fi lislaam tere ko jërë ngeen jëf wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ñi ngi ñaanal nag cheikh mouhamadou mourtada mi mu yàgg fi lool te wér ñu yàgg ànd ak moom jotaay bi yàgg ko uh, ànd ak moom ci ci ci ci ci ci lislaam ak dundal diine rek yàlla may ko kàttan tëbb ko kàttan ak wér-gi-yaram yàlla yëggaleel ko ay mébétam ak i naalam uh, uh, ba mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawal lislaam bokk ci ñi nga xam ne dañuy wéyal euh, taxawaayu sëriñ Touba boobi bokk ci ñi nga xam ne dañuy wéyal taxawaayu sëriñ Saalihu Mbàkke ci doomu aadama yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.